فإليك يا محمد ناداني mbokk jullit yi ñuy déglu ci safina fm 98.2 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Muhammad tabaarakallaahu journée de fraternité musulmane daayira safinatu saada bi nga xam ne tabaarakallaahu sunu wëllëre bopp di Ceerno Alxaaji Hamid Yoro Bane mooy seen responsable moral tabaarakallaahu bokk ko dëkkandoo yëpp fa tabaarakallaahu soppee yeeg am di jàmm yi ñooy dellu siwaat ci seen journée boobu nga xam ni sunu wayjur di sunu soppe di sunu sang ñu ñëpp tabaarakallaahu di Ceerno Mouhamadul Bachir Tall moo koy jiite fii ci Scat Urbam ñu di ko teertu di ko séen lépp fa tabaarakallaahu mu jox ci ndigal muqaddamam bi di taalibeem bi doomam di alxaaji Cerno Hamidou Yoro Bane mu yiw wu yaatu fa tabaarakallaahu moom itam mu jël ko delloo ko jaamu yàlla yi muy ñetti fan ak juma 11 novembre tabaarakallaahu bu ñu xëyee kaamili alquraan yi zikkar yi ñaan ñaanal sunuy bopp ñaanal réew mi ñaanal jullit ñëpp fa tabaarakallaahu mooy doon programme mu ajjuma bi julli juma tàkkusaan ñu def tabaarakallaahu xadaratul jumaa tëjee ko tabaarakallaahu waxtaan ñaxaat nit ñi ci tariqa beeg li ñu jàpp tabarakallahu bu ñu demee ba samedi le 12 novembre ba nag insha allahu taala dañ wax ne lu weesu 16 heures ci kàttanu yàlla nag ci la cérémonie officielle bi di am fii ci scat urban ci école bi ñu defi def tabarakallahu conférence bu am solo boo xam ni fa tabarakallahu dafay delluwaat ci thème boo xam ni thème bu am solo la mu di paix ak sécurité facteur de développement tabarakallahu jàmm ak kaaraange dañu wax ni fa tabarakallahu سانو الخالق تي نه تي ليپ خاج ويت موي تشابي يوكوتي جوخ كو نك سين بوكوم طالبي لي دي الحاج عبد العزيز فال بو وركو تريت تي تيواي اك نيام اك نديغلو سين محمد البشير تال تي كاتومي يالا بو ني دامي با ديماش با ان شاء الله تعالى تي صبح ني ديف نك مو نيك كونسلتاسيون ميديكال تي والو سيت تبارك الله اي دكتور دا في نيو دي خول نيت تبارك الله فالين كونسلتاسيون jàppale len ci garab def ko li wajhi allah taala kenn du ci joxe dara mu nek ñetti fan yo xamni ni tabarakallahu yiw la ci bidaaya bi ba ci nihaaya bi yal na yàlla motli ci yene cierno motli ci yene mbollem ñi nga xamni ñoo ci nek di ci jàpp yàlla yóbbu nu ba ca bés ba tabarakallahu yàlla subhanahu wa taala defal ñu ci lu kawe suñu njort ak suñu yene ñi ñaan yàlla mucc mucc le wér ak wér la dund ak dund le اللهم ارحم عبادك وبلادك وصلى الله على الرسول وعلى آل الرسول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما في الخير والإنسان وأبيت دين الضعف لا مستكبرا ورفعت شأن الدين بالإيمان لولا كما صارت لنا أسماء رمسا لكل حقيقة وكي